Salam alaikum. Monsieur le ministre euh, de la Culture, maa ngi lay euh, le juróomi fan ci weeru mai ci 2023 Bobet ak léegi tontu monsieur le ministre maa ngi la bind euh, animateur culturel yi xaw ma tontu mais amul solo mais li tax ma parce que ci lettre boobu sax maa ngi la félicité di la encouragé compte rendu ci ndaje bi nga ak le 25 euh, avril euh, waaye euh, yi passé ma dégg ne na jafe-jafe amoon nañ yaakaar ne buñ nommé ministre dina wax yoo dootul amati parce que 2019 amone na jafe recrutement parce que jafe-jafe bi am moy recrutement mi ñoom dañuy faral di wax né jaarul yoon 2020 ñu ñëwaat mu amat ciow jaarul yoon dañoo recruter ay doom ay jarbaat ci ñu nekk ci ministère bi ak ñom sen 2023 mu amat même ciow bi donc nu mu munti demee li tekki moy il y a un problème parce que ay magum jëm buñu waxé né li moy règle du jeu yi ni lay démé warul am jafe-jafe donc ça veut dire que le ministère de la culture bokk na ci ministère yi nga xamné ne jafé jafé mu téreul ay règles du jeu nit yi yëpp xam ko ne bu ñuy recruter ni lay démé donc monsieur le ministre naka ngeen di def pour mëna a lolu même bu féké ñetti wër mo leen déssé monsieur le ministre lan mo xew école nationale des arts té fofu itam am ay ay kat yi am yu wax né am nañ ay jafé jafé nous avons am na respecté wuñ ko Nous avons indemnité yoo xam ne kenn du leen ko fay dañuy le nañ matériel pédagogique monsieur le ministre lan moo xew foofu mais lan mooy surtout est-ce que jafe-jafe yooyu na ci budget bi ba parce que loolu mooy solo li ñuy waxtaanee nii ba nga ba nga xam amati ci école monsieur le, ministre des Finances, dafa am solo euh, ñu wax sénégalais yi sénégal nous ngi wara en 2024 junni ak juróom ñetti avec ak ñaar fukk ak juróom benn virgule milliard de francs cfa ci bor 2024 bu dee leerul ci bopp sénégalais yi ñu wax leen ne weer bu nekk téeméer ak juróom fukki milliards la cent cinquante milliards par mois bu dee leerul ba léegi ñu wax sénégalais yi ne juróomi milliards bés bu nekk la cinq milliards de francs CFA bor yooyu ñu jël bokk na ci li tax FMI ak banque mondiale di ñu xoj naan ñu même bu ngeen soxlawee dix animateurs culturels ñaar ngeen di jël même si fekkee le Sénégal moi 100 sages-femmes 10 ngeen di recruter même si fekkee le Sénégal y a 10 hôpitaux ñaar ngeen di tabax nous gis FMI Banque mondiale. pour moi, ku aliéné ak soumis à l'impérialisme rek moo mun riitil FMI ak Banque mondiale mais lu tax may monsieur le ministre Je dis dafa am solo tamit ñu wax sénégalais yi ne li tax bor bi milliards de francs CFA à payer en 2024. C'est parce que en 2024, nous avons fay le premier eurobond de 2014. Macky Sall ak Amadou le candidat de la France et de Macron moo ñu ci dugal 2024, fay également le deuxième eurobond de 2018. Macky Sall ak. Amadouba, le candidat de la France et de l'impérialisme, non Google. Et pourquoi Pour, pour, pour, pour, d'accord, des multinationales et pas pour l'intérêt des Sénégalais. D'accord Ce n'est pas le président de tous les Sénégalais, c'est quelqu'un qui assassine les Sénégalais, c'est quelqu'un qui emprisonne les Sénégalais, c'est quelqu'un qui complote. Le premier menteur s'appelle Macky Sall. Ousmane Sonko, cinquième président. On va tourner cette page, Inch'Allah, en février 2024, Ousmane Sonko, cinquième président.